mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun sa su ne nag di taamu rek xibaar ci seen ci d'information bii di syndicalisme point net xibaar yi nag des ko doore rek ak mbirum série boobee nga xamante ni ñu ngi ko duppee cirque noir ñoom nag ña ko doon amal teg nañ leen loxo loolee nag mu ngi am gannaaw bi nga xamante ne am ak ket bu yaatu daal dinañ ko caa ubbi ñoom nag ñi amal loolee nag gannaaw ba ñu leen laajee la ñu xam ne nag ci kanamu enquête yi moo di loolee ñu doon def dañoo bëggoon rek am ay vues yu bari ngir rek financer seen série boobee nga xamante ni ñoo ngi déroulé mu tudd rek cirque noir ñuy fàtte nag ñuy fàtte nag policier yu division spéciale bu cyber sécurité ñoom nag procès dañu ci njeextalu ay bés bi ñu génn arrestation scénariste boobee nag ak producteur acteur cirque noir yëpp nag gannaaw bi nga xamante ne def nañ lu ñu dupe ab bat buzz ngir rek justifié u ne xam ne ñoom dañ koo def ngir rek fexe bu am koppar yoo xamante ni daanu si mën a wéyal rek di financer seen série boobee mu nekk mbir moo xamante ni tam fan yi ñu weesu bëri na coow lool ci réewum Sénégal xamante ni jot nañ ko génnee te mu doon loo xamante ni wuyuwul dara ak valeur yi ñu xamee réew ma Sénégal ba tax si jamono ji nag ñu teg leen loxo te boo mooy sax mun lañ leen a defeere tey ji foofe ca parquet ba ba tey ci wàllum arrestation boobee nag ki nga xamante ni si moo di Mame Mactar Guèye bu Jamra kontaan lool ci mbir mi la def gannaaw bi nga xamante ni si ñoom ñoo nekkoon ñi doon wéyal xeex bi demoon sax bu xaatim ab plainte jagleel ko ñooñu nga xamante ni ñoo def jëf joojee tey ji nag ñu yëkkati kàddu xam ne nag mbir mi moom am nañ ci ab dayo bu baax a baax kontaan ci gannaaw ba ñu leen tegee loxo di kat yoo xamante ni Imam Makhtar Gueye moo ko dal di yëkkati ñu wax ci ah, mbirum njàng meek njàngale mi nag foofee te diwaanu Géejawaay benn école bu ñu duppee Dia School nag foofee ñoom mer la ñu def gannaaw bi nga xamante ni si dañu ne daal seen candidat ya ca centre ba def examen BFEM ñoom ñëpp la ñu ajourné gannaaw bi ñu jàppee ne daal ay ndongo ñoo fa doon tricher defub càcc yi tax nag ñu sanctionné bu ajourné élèves ya tax nag merloo waa école ba administration ak ndongo yi ñëpp nag fas yéene nag yóbbu mbir mi fa mbaxana doon doonee benn ne daal loolee ñu daal dee def ta nekk dafa am lu ca laxasu te niñ ko defee amut leen loo xamante ni jaar na ci yoon tax daal kuréel googe nag nekk ca école bu privé boobee nag tudd Dias School nag di ŋàññu baax anam ba ñu doxalee jëmale ci seen ndongo ci l'examen BFEM yi tax daal ñu ne danañu ngemb taxaw temmi nag fexe ba joyanti yooyu nga xamante ni jot naa dal seen kaw ñu desandi ba tey ci wàllum mbas mi nga xamante ni nag fan yi gis nañ ni nag kaay ñu ngi gën di wàcc ni ji nag gis nañ ne cent quarante huit képp la ñu dal dee am gannaaw mille neuf cent soixante dix yoo xamante ni def nañ ko lu toll ak fukki doomi aadama ak benn nag jot nañoo ñàkk seenu euh, bakkan Sénégal nag ba mbir mi dooree ak léegi lu tollook nag soixante onze mille deux yoo xamante ni déclaré nañ leen positif ca ñoom nag lu tollook mille six cent vingt cinq ñoo xamante ni jot nañoo ñàkk seenu bakkan ci woppi coronavirus wax ci coow li nga xamante ni moo amoon foofee ca RTS nag xam ne ni ki tey ji agent yoo nga xamante ni ñoo doon tuumaal seenu directeur général di Racine Talla nag ñoom ñu waroon leen a déglu ak waa sûreté urbaine ñoom nag ba ñuy dem lañu yóbbaale rek moo ay mer gàddu xam ne nag bu ñu demee nag ba yoon daal dee def liggéeyam ba noppi nag pare nañu rek pour tëdd si kaso gi waaye nag xeex ba nga xamante ni ñoo ngi ko sumb ko mës a wàcc benn yoon loolee nag ni ki tey la am di coow lu juddu ca RTS ci diggante syndicaliste yi ak seenu directeur di Racine Talla pënd ma nag wuréegul ca mbir ma ndax ni ki tey jii lañ leen war a déglu ci accusation yi nga xamante ni daal dina koy ngàcc seenu njaati gi di Racine Talla jëm ci ab woo xamante ni dara baaxu ca foofee ca kër googee ñu duppee RTS radio télévision nationale mu nekk mbir moo xamante nag boobaak léegi ñoom ñoo nga say di xëccoo ak seenu njaatige boobee di Racine Talla tax daal te jii ci kanamu ate attekat bi ñu yóbbaale seenu mar gàddu xam ne nag pare nañu ngir rek tëdd ci kasu gi waaye la ñuy xeex moom daanu ko gën a euh, wéyal ñu wéyal xibaar yi bi yoon nag dem ba ca diwaanu Kaolack l'hôpital boobe nag ay kuréel ñoo taxaw rek ngir fexe ba mayeb euh, deret bu hôpital boobee bañate am benn jafe-jafe ci wàllum euh, deret mu nekk mbir moo xamante ni tam ñu ngi ko amal ci ay bés bi ñoo génn ngir rek jàppale hôpital régional bu Kaolack nga xamante ni dafay faral di manqué deret lu bëree bëri loolee tax nag yéen it ci ndaw seenu lëkkaloo ak étudiant ni ki samedi ji nag ñu daal di amal ab bëccëg ngir rek mayëpp deret ju bëree bëri bu ñu bu service des maladies infectieuses bu hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass bu Kaolack nee na yéene rek moo di ñu fexe rek ba benn doomu aadama dootu ñàkk bakkanam ci région bu Kaolack te la koy sabab di ñàkkum deret loole tax nag ñu takku téeméer ngir rek fexe ba ut deret ju bëri denc seenu l'hôpital boobee su ko defee nag euh, ñii di ñëw foofu fee di faju di manqué deret ñu mun leen koo defal ba dootuñu amati benn jafe-jafe loolee nag di euh, yéene bi waa hôpital régional bu Kaolack dal di am mu nekk xibaar bu ñu jëlee suñu naataango yi fare ci syndicalisme point net ñu bind ko ñu dal di leen koy euh, yeggee mbokk yi ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun saa su ne di fi taataanee xibaar ci seen site d'information di syndicalisme point net lii lañu amoon yére yeggee leen ko ci xibaar di jaajëfal képp mu yemb yemb lu mooy loolu point net dig daje ëllëg yeneen jotaayu xibaar jaa ngeen jëf